alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin nabina muhammadin wa ala wa ashaabihi wa sallama tasliman kathira bokk ci yàlla comme niñ ko xamee ñun ñëpp ñu ngi dund ci jamono joo xamante ni euh, mujj ak jamono la bi maanaa mbir yu bari tey dafay feeñ walla feeñ na yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañu ko te ñu ngi ciy dund yu bari ba tax na mbokk yi mbir yi dafay lëbëjoo jaxasoo maanaa diine tey boo deful ndànk rek di nga jaawaale loo xamante ni bokkul ci diine nga dugal ko ci diine jàpp ni loolu dalay jegeloo borom bi subhaanahu wa lu nekk loon diine ci jamono yonent ba sallallahu alayhi wa moom mi yàlla yónni woon jox ko alquranul karim wóolu ko boole ko ay saxaaba tul kiram yàlla kontaan ci ñooñu ba ñenn ci ñoom sax yonent bi sallam tudd leen joxoñ leen baaraam ne yéen aljanna ngeen jëm kon lépp luy diine mooy loolu ñooñu jëfe woon gëmoon ko daal di koy jëfe loolu moom mooy doon diine ba yowmal qiyaama bés bu ñuy dajeek suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla yërëm ñun ñëpp dugal ñu aljanna jéggal ñu suñuy bàkkaar moom moo tax mbokk yi tey gis nañ yu bari tey mbooloo yu bari coow yu bari nanga xam ne lu mbooloo bari bari ak loo nekk ak ay mbooloo euh, ñu may la fit wala nga may leen fit ngeen di waxtaan di ree kontaan nekk ci ay groupe ay association ay daje ay lépp loo xamante ne daal yaa ngi ci bul fàtte ni bés dina ñëw yow rek di nga des ak sa borom ci sa bàmmeel te yàlla dina la àtte borom bi subhaanahu te yowmal qiyaama tamit di nga dekki yow rekk sa compte kenn du intervenir kon kuy def na def te yàlla rekk tax te lépp looy def na ko def comme nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale lépp loo xam ne nag dégg nga ko walla boog yónnee nañ la ko wala wax nañ la ko mu jëm ci diine loo war a njëkk a laaj mooy est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko wala est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wax na ko wala est ce que def nañ ko ci kanamam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy bàyyi mu bàyyi mu jàll bi maanaam mu daal koy nangu lu dul loolu daal moytu moom moo gën ci yow te mbokk yi bu ñu naxante bu ñu naxante àdduna bi nga xamante ni dafa gàtt lool am na ay endroit yoo xamante ni ay place yoo xamante ni tey mënoo fa teg sa tànk tey mënuñu la fa yóbbu lu dul day am fooy jaar tey am na yenn maqaama yoo xamante ni mënoo ci yegg ci àdduna bi laay wax nii rek walla boog man xam naa rekk naa la fa yóbbu déedéet mbokk yi yowmal qiyaama comme àdduna bi yàllaa ko moom subhaanahu wa lu ñu bëgg nit nañuy topp nit ndax dafa topp yàlla nañuy bëgg nit ndax dafa bëgg borom bi subhaanahu wa taala vaut mieux yow kese nga nekk nekk ak yàlla que nga nekk ak mbooloo waaye nga sori borom bi subhanahu wa taala nekk ak seytaane yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi bés a ngi suñu kanam yàlla waxantuwul waxu yàlla wa man asdaqu min allahi qiila waxam dëgg la subhanahu wa kon bu ñu kenn nax bu la kenn nax sooy jaamu jaamul yàlla kese booy wóolu wóolul yàlla kese booy yaakaar yaakaaral yàlla kese booy ñaan ñaanal yàlla kese booy tiit ragalal yàlla kese nit amul mënul nit day sonn day gëmmentu day nelaw bal nit day dee borom bi subhaanahu wa du fàtte du gëmmentu du nelaw laata taxuduhu sinatu wala nawm te nag moom lahu maa fi samawaati wa ma fi l moom moom lépp te nag moom wa huwa kulli shay'in qadir lu ko neex def subhanahu wa taala laa yusalu amma yafal wa hum kenn du ko laaj subhanahu wa bal ñun la ñuy laaj fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin yonente ya te ñoom seen wàll wàcc na waaye ñu nit dina ñu laaj kon ma ne kuy bëgg na bëgg yàlla sooy bëgg nit na ko bëgg ndax dafa bëgg yàlla waaye tamit kuy wakkiirlu na wakkiirlu ci yàlla nit mënul dara mënula lor mënula njariñ mënu la jàppale lu dul fekk yàlla ci ànd kon jëlal sa lépp nga jox ko borom bi subhaanahu wa nga wóolu yàlla nga yaakaar yàlla nga ragal borom bi subhaanahu wa taala lépp looy def nag wala nga koy wax wala nga koy fas fas ci sa xol mu nekk diine nga koy jëfe lu ñu lay laaj yowmal qiyaama yàlla lu mu lay laaj mooy est-ce que li nga def li wala li nga wax li wala li nga jëfe li yonent bi ma yónni woon est-ce que def na ko est-ce que wax na ko est-ce que approuvé na ko def nañ ko kanama waxu ci dara lu dul loolu daal moytu ko mbokk yi wallaahi ci kaw loi yu ñu fi am ci suuf yeneen loi ñoo fa nekk de bàmmeel dafa xat te tuuti bàmmeel dafa tàng te lëndëm lu fay yaatal nit lu fay may nit leer lu ko fay jàppale féexal ko fa moom mooy mu dellu ci yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ah saxaabatul kiraam nii lañ ko déggee woon nii lañ ko jëfe woon lu dul loolu rek bàyyi ko loolu moom moo gën a dal xel moo gën a wóor te nag coow li coow li coow li mosuñoo gis kenn gaañu ak lu ñuy yuuxu ak wax ji lu muy bari kenn ne bàyyi leen ma ci biir ma daal di ko fay wéttali ndax kii sama xarit la woon ndax kii sama soxna la woon ndax kii sama jabar la woon ndax kii sama doom la woon wala ndax kii sama sëriñ la woon man mënuma bàyyi kii donc bàyyi leen ma suul leen ma ci biir maag moom déedéet ak lu coow li bari nag lu wax yi bari coow li lu mu mënta bari nag ma ne ak ma riirandooy lu mu bari ku dee ba ñu suul la ñépp ay dellu kenn du des ak yow waa aka moo neexoon nga des ak waa jooju nga xam ne bëgg nga ko kenn du des ak yow ne waaye baa ma des ak moom suul leen ma fii ndax man maa doon sëriñam naa ko jàppale abadan mbokk yi kullu nafsin raiqatul mawt ñépp ay dee te nag képp ku dee di nga gis loo jëf kon nañu dellu ci yàlla nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi naxaate bi nañu bàyyi jël tuddee mbir yi diine te du diine diine mooy li fi yàlla wàccee yonent bi sallam jàngale ko lu dul loolu du diine kon yow mi laay waxal moyal ci alxuraan ak sunna jàpp ci jàpp ci ba dajeeg sa borom jàpp ci incha allah taala ba aljana boo ko bàyyee rek xamal ni perte nga àdduna te nag perte yowmal xiyaama moom moo gën a ti rëy yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar suturaal ñu képp ku feebar yàlla na yàlla may ko tan képp ku nekk ci ay jafe-jafe yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na yàlla wan ñu alxuraan ak sunna yoonu aljanna yàlla saxal teg ñu ci ba bés bu ñuy génn àdduna fekk ñu ngi ciy génn wala tamutunna illa antum muslimun ñu nekk ci yoon boobu dund ci yoon boobu dee ci yoon boobu dajeeg suñu borom ci yoon boobu yoonu safara ak yoonu bokkaale ak yoonu bidaa ak yoonu bàkkaar yu feeñ ak yu nëbbu yàlla jàppale ñu yërëm ñu ba ñu jóge ci yoon yooyu sori ci yoon yooyu sori ko comme nu asamaan ak suuf nu mu sorantee ba dajeek suñu borom yàlla may ñu dee ci loolu yàlla dugal ñu aljanna ñun ak suñuy wayjur ak suñuy mbokk wasala wasalillahu wasalli nabina muhammadin wasallim tasliman kathira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh